Abdoulaye Bob dal leen ak jàmm yéen yu bëri xëyandoo tey euh, ndaje mu yaatu di rentrée solennelle des cours des tribunaux njiit mi Macky Sall ma woon Walf Quotidien xam le ne njiit mi Macky ay noppam riir nañu démb ndax la mu bëggoon déggu ko ca ndaje ma yéen cabinet magistrat yi euh, fippu nañu ñaawlu tolluwaay réew mi ci wàllu paj mi sooxe na lool bu ñu sukkandikoo ci magistrat bi El Hadji euh, Mansour Faye mi xam ne lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramu Sénégal bu ñu sukkandikoo ca càmbar gañ ca def daanaka paj mi feebar na lool bërëb bu fajukaay yu bëri ñoo gën a feebar hôpital yeeg eh, ci vingtième siècle gañu ne eh, tey hôpital yi waroon nañu méngoog jamono waaye tey am na ñooy hôpital yu jaxasoo yoo xamante ne daanaka ci seen rek nga mun a yem waaye nag jumtukaay ya war amul ci yooyu de googu le eh, fajukaay ak ñi faju sax feebar bëgg a faju doon lu leen jafe lool lu magistrat yi jota ñaawlu bokk ci médecin yoo xamante ne ñu ngi ci sooma ci jamono ji ndax ñàkkum xëy garab yu bari yu ñuy jaay ci mim réew doon lu gàllankoor paj mi njiitu réew mi Macky Sall jot leen a tontu jàpp ne dina def yitte ngir tabaxaat i bërëbu paj mi ngir gën a gindeeku ci paj mu euh, Sénégal yéene kabi di Soleil ne ci googu lépp ndaje rentrée solennelle des cours et tribunaux bu Sénégal jóg na taxaw ngir défendre maanaam taxaw justice bu Sénégal lam ca war wala boog lu mu laaj daañ ko ca matal bokk na ci euh, justice beek euh, matuwaay yi ñu jël ci wàllu jumtukaay ngir fexe ba mu jàppandi système sanitaire public bu Sénégal jur na waxtaan bu yaatu diisoo doxoon ci diggante magistrat yeeg njiitu réew mi Macky mi i tamit lii di scanner dina doon lu ñuy xamante ne ko mun a fay ñoom mag ñi euh, bokk na ci El Hadji Biram fay euh, Sakku yi tamit ñu gën a suqaliwaat euh, paj mi ci mim réew yéen a bi di le quotidien génnagul ci google rentrée des cours et tribunaux natt nañu justice bu Sénégal teg nañ ko ci balance ba njiitu réew Macky Sall xam le ne état bi dina jël matuwaay ngir gën a sàmm suñu justice bi de taxaw i tamit magistrat yi mu ngi ci yéen a di le quotidien yor yor bi ci xatam bu njëkk ci google ndaje bâtonnier bi moom sàkku ci magistrat yi ñu bañ a indépendance maanaam nañu moomee seen bopp ci liggéey bi bu ko dara yàq bu ko dara sànq mu ngi ci yéene kabi di yor yor bi yéene kabi di peuple quotidien ne lu jëm ci magistrature bu Sénégal jur na ndaje mu yaatu njiitu réew Macky Sall ne dina taxaw yoon taxaw yi tamit magistrat yi yéene kabi di réew mi quotidien ne lu googule ndaje institution judiciaire yu Sénégal am ñu leen joxoñ baaraamu tuuma ne te deetuñu njaaxaanaay ba tax na bâtonnier bi sàkku ci ay naataangoom yu yëngu ci wàllub yoon ñu gën a am taxawaay gu mat noot kenn noot leen wala boog euh, xañ leen euh, seen euh, sañ-sañ wala boog seen indépendance maanaam moom sa bopp ci métier mi yéen a bi di réew mi quotidien xeeduñu ko dégtal ay dëgg yu tukkee ci bâtonnier bi jëm ci magistrat yi soñu na leen ñaax na leen ci seen indépendance yéen a bi di l'info ñu ko leeralal yéen a bi di source ne ci googu ndaje rentrée solennelle cours tribunaux bokk na ci waxtaane fa nees mun a def ngir joyantiwaat yeesalaat li nga xamante ne mooy cour ak i tamit eh, ngir liggéeyam gën a eh, jàppandi gën a gaaw lool eh, te leer leeraange ya ca war ñu mun ko caa amal yéen cabinet yeesal googe maintenant ku génnalul njiitu réew mi Macky Sall àndu ca mu ngi ci source a jege ñaale njiitu réew Macky Sall ànd nañu fas yéene jàmmarloog Ousmane Sonko Tresoy Diouf bokk ci plateforme Macky 2024 xam ne Ousmane Sonko lay bi jeex na dana dem ji yoon te usman Sonko mun tatal mun ta yee fitna ci mim réew xam le ne la ko yiteel mooy fexe ba dar ndaw ñi mun a yee fitna Tresoy Diouf ne nguur gi du ko bàyyee noonu li des mooy na dem leeral ci euh, la ko Adji Sarr di tuumal euh, ca mbirum Sweet Beauté yéen ak bi ne mbirum Sweet Beauté moomu de euh, jeexagul jur na yëngu ci géew politique Sénégal bu ñu defu ndànk sax confrontation mun na am ci diggante njiitu réew mi Macky Sall ak Ousmane Sonko yéen ak bi di Tribune ku yaboo sentu jamarlo am ci diggante nervi ña fetek Pastef ak ña fetek Benno Bokk Yaakaar yéen ak bi di Tribune xëy ko leeralal Boubacar Ba jiite forum du justiciable ginnaaw kaddu yamu yëkkati eh, keroog ci émission opinion ci Walf TV ci diggante mag Pierre Edouard Faye Alioune Tine xam ne woon ne mu Sénégal nañ ci jog eh, bi de eh, dossier sud boote bu ñu deful ndànk mun na fee jur guerre civile ba tax na fraude du justiciable dankafu Alioune Tine sàkku ci moom mu jox cer institution yi ne fii ci réew mi le mandat génn guddoom Sénégal mu ngi ñuy càmbaral société civile bu Sénégal ana ban société civile la ñu am ndax société civile bu dugal bopp ro ci lambe ndax société civile gu tëddee njaxanaayam déet ndax société civile gu féete ci kujje politique bi ndax société civile gu féete ci nguur gi yéene kaabi di le mandat xëy di ñu ko dégtal le euh, témoin xëy di ñu dégtal musiba gi euh, Sénégal di dund euh, jëm ci accident yi ñu ngi jooy ba léegi noppee gu ñu accident ga am ca Kaffrine foofee ca 6 kilos la ëpp ñeent fukki doomi ñoo ca faatu ñu ne te taway accident geneen amaat ca Sakal ca yoonu ñaar fukki euh, doomi aadama euh, seen bakkan rocca ci jamono joo xamante ne Kaffrine fa euh, accident ba amee woon ña ngay amal fes nag ña nga ca mbumbaay ña ngay mbalax fàtte nañu ña faatu ci google accident rawatina ña ca loru yéen kaabi ne lépp amee nag ci teewaayu premier ministre Amadou Ba yéen kaabi di libération ne li am ci wàllub njublang ak njuuj njaac lubal gu ëpp ñeenti milliards yoo xamante ne dañ ko jalgati jaarale ko ci ñetti société yoo xamante ne ci tur rek nga koy dégg waaye nag li war ci société amu fa yéen kaabi xeedu ñu dégtal ñañ ca jota tudd tudd ak ñañ ca jota teg loxo yéen kaabi di libération ne waa ji nga xamante ne fasoon lool ci wàllu TikTok Sambaka mboro borom muy gaaw yéen kaabi teg nañ ko loxo ma nga mandat lañ koy toppee mooy mbirum càcc yéen libération moo ko yeggee yéen kaabi l'observateur xëy duñu yeggee wàllu animation ñeel APR ak nees mun a def ngir euh, taxawaat ci géew politique bi njiitu réew Macky euh, na ay nitam ngir ñu taxaw tembe euh, ngir fexe ba sàmm réew mi ak itamit waajal élection présidentielle ga mu ne woon moom Sadio Mané bu fa jógee ba léegi Liverpool demeetul noonu defoon na fa jaloore waaye nag booba léegi Liverpool daanaka jafe lool mu am ndam ci jamono ji ndam lay sant sentu ci lamb ji moom sita wax na ci lu bari ci tolluwaay réew mi wax na ci géopolitique bek na mu bindoo wax na ci xew ndaw ñi ñàkkum xew ndaw ñeek elgu lamb ji diggante Lac de Guiers 2 ak Gris Bordeaux combat goge kum ca jël ñoom ñaar combat Modou Lo Boy joxe na ci xalaatam waaye ci wàllu politique bu Sénégal bu jax lool moom sita wax na ci bokk na ci sàkku na ci njiitu réew Macky Sall mu baal Ousmane Sonko leneen ci ay kàddoom si ta xam le ne mu senegal mi de ñoo sàggan ba mu euh, fitna yeewu fi ndax war nañoo sàmm jàmm ju fi ne mu ngi ci yéen a bi di euh, suñu lamb yem fu ñu jeexalee xeetu yéen a kaay ci baatu askan wi tënk la woon incha allah dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaaru digg bëccëg gi euh, Seydina waaw waaw yow mi bëgg a tabax tabax bu jaar yoon te taaru ak gaaraan jokkalal waa SAR construction et service yi nga xam ne bépp bâtiment bu ñu tabaxul rek baaxul sa constitution e service daal mooy jóg ngir di leen tabaxal ba ngeen kontaan li ma gën a neex si ñoom nag mooy terrain nga leen di jox yaa ñoom daal ba caabi kër rek ngeen seex kon ça veut dire lépp ñoo koy resté lépp loo xeetoo ci kër gi rek ñoom ñoo koy def waa saa constitution et service nag mën ngaa jokkoo ak ñoom ci numéro téléphone yooyu affiché ci barre écran bi mooy 77 567 64 58 wala 76 534 16 49 boo jokkoo ak ñoom waa Sall construction et service dina la tabaxal ba nga kontaan ci anam bi nga xamee moom nga ko bëggee jërë ngeen jëf. dama jaaxle jeex na ak borom kéemtaani secret yi kookoy mooy Cheikh Ousmane Touré indi leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 maladies ah, loolee tax mu dippee si faaxu jooni jooni Cheikh Ousmane Touré nee dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy ah, lii di kuli nag ak góor gu tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement générale nag moo ci man yéen ñi bëgg 77 57 11 Sufa wu joni joni daal mooy mos dolli.